ñoo leen di may seen émission ngonal Samb alaaji yéex na ñoo génn kër ga nag dëgg loo sentir tey fi nga ñëw xam nga lii la tiim waa baa wadd déedéet alaaj bàyyi li ngay wax nag yow ah du ñor taab bi déedéet yii duñu ñor taab bi ah. xam nga mbir mi ñun askan wi moo ñu ñor dëgg la. te daf ci am ay nit ñoo xam ni. Mhm. dañuy wax wax ju positif maanaam wax joo xam ni ku ko dégg am loo ca jëriñ am lu la ca jëriñ. dëgg la ñun ñooñu lañ fiy woo. Mhm. woowuñu kuy xuloo. Mhm. woowuñu kuy xeex. woowuñu kuy sànniwaate ay xeer. dëgg la. ñun daal ku mën a ñëw ñu fekk si la parce que ngonal tuur la ngonal tuur la de ku mën a ñëw daal ñu fekk si la Europe ak Amérique ñëpp pare leen li ngay wax daal mën a jëriñ askan wi na ñëw ñun nekkaluñ fi kenn askan wi lañ fi nekk dëgg la li ngay wax daal bu mënee jëriñ askan wi hmm. askan wi mën cee jëriñu hmm. ñu nekk na yaay sunu xarit hmm. man bëgg naa sax ngonal lii waaw élève bi def examen waaw di ko waajal waaw bu ko dégloo waaw dem examen ne lii ca ngonal la laa ko jëlee laa ko déggee mais nag loolu. Mhm. il faut nga invité ay tet. tet mooy ñan alaaji Sénégal am na tet. senegal Sénégal kese la. xaa dañoo nëbbu. borom mi bopp kese la. mais da réew bu tollee foo xam ni loo wax rek ñu féetale ko ci dóor loo wax ñu ni da koy wute xaalis. Mhm. loo wax ñu ni moom daal kenn waxatul pour lu pour positif maanaam daal kenn waxatul lu jëriñ askan bi lu waay wax rek dafa am fenn fu koy wékk. moo tax ñi xam. dañuy noppi ba wax. Hmm. yaa ngi may dégg. waaw am naa émission bu ma déglu. waaw. Ngone Ndour. ak Ibou Ndour dañuy def seen petit gàllé. mel na ma waaw. France Amérique ci Afrique Mali Burkina Faso ñëpp dañuy def euh, xale dafa am luy luy nelaw ci moom. Mm-hmm. loolu nelaw ci moom ay mag ñoo ko mën a yee. Mm-hmm. ñoom ñu organiser lu ñuy wax seen petit gàlle mhm. seen petit ci ay normes yu leer lañ ko teg dëgg la maanaam dañuy xool ni ñu ni cinq premiers il faut nga bokk ci cinq premiers ci sa classe mhm. il faut nga am sa ndigalu jur bu mhm. góor ak bu jigéen ci ay normes lañu teg seen petit gàlle mais tey gis nga ñi ngi koy def adduna yëpp a nga ko bëgg ñëpp di ko seetaan mm-hmm. mais am na ci ñoo xam ni nee na ne dañ ciy jëgal ay ndogal parce que nee na ne exploitation la xaw ma la nag la nag lañ ci wute xale te pourtant xale mm-hmm. yaa ngi ciy gagné ay xale yaa ngi ciy am ay terrain di ko seen waajur yi dëgg la di ci am yeneen ak yeneen di ci yeewu parce que kër gañ leen di dugal dañ leen wutal ku leen di jàngal alquran wutal ku leen di ku leen di ku leen di jàngal école kenn du nangu sa rek daal boo koy porté plainte ah. na doon lu la leer balaa ngaa porté kenn plainte Sénégal kenn du nangu waaw kay waaw waaleykum salaam ah. mu ngi de. waaw yow Ndiaye. yii de laay def kër gi ma leen andi tey. waaw kilifa gaa ngi kilifa gi yegsil. kii àdduna xam nan ko. waaw yegsil bisimilah. te de yéen ñaar xaw ma ku ciy buuru moromam. yegsil ah te man njaayeen bi sa nekk. awal nii <laughs> waaw la wax de. sekk la sant sekk Diop waaw ah, kay sekk waay am géy Diop. Ah. baax na soxna si santal ko sekk baax na géy baax na. Ah, mais da ngay wax sekk géy. sekk baro ngi ni baro similoo na di séet bàyyi ko bàyyi ko waaw. ah kilifa gi. waaw ñaan ñaan caw. ñaan caw wala caw ñaan. <laughs> Uh, Ndiaye. waaw kilifa gi kii da naan ko la Dior Diop kuli Dior Diop. Fat Fatim Ndiaye Calaw Massamba Yacine gis jam ko du Fall ak Bargué Diop Diogo Maay. waaw ñaani bañ na. Lat Dior moo daan capitaine Laurent. daan Sauvé daan Damel ma joojo congol ngol jaala baba jaala Diop ñaani bañ na. waaye nag man waa fii la. waaw fii doo doo Diop Diop lébu la ma Fatim Diop moo sama maam fii. Ah. kon yéen ñëpp njuuy njuuy njuuy nañu de. ah dañ na Diop gi rek. ah jaa ngeen jëf nag. Diop kontaan nañu. njaay Ndiaye. sagal nga ma. dëgg ndax nag dañ maa sas ne ma man may andi gan yi léegi ma ne leen andeetuma gan yi ñun ñooy fekk ji gan yi muy ngonol tuur. ma waxtaan ak moom. waaw. mu ma Cheikh. waaw. seen kër googu di ngonal. waaw. askan wee leen ñor. Mm-hmm. askan we leen yëkkati. Mm-hmm. te man askan wee ma ñor. dégg naa ko ci ay waxam de. ginnaaw da ngeen a bëgg a ñëw ma waxtaan ak yéen ci askan wi. waaw. Mm-hmm. naa leen sama accord. ñëw leen fekk si ma sama kër ca yeen. ñu waxtaan ngir Sénégal. xam nga Ndiaye li nga xam ni. li may wax foofu. du ndaw. ndax tey jii buñ ne président Mbaye Jacques Diop. Hmm. ñu ne député maire honoraire de la ville de Rufisque. waaw ne président honoraire du conseil de la république pour les affaires économiques et sociales. waaw ñu ne ancien président de l'union des conseils économiques et sociaux et instituts similaires de la francophonie. Hmm. diis na. ñu ne commandeur de l'ordre national du Lion. diis na ñu ne ancien président de la commission des lois à l'Assemblée nationale. waaw du secretaire général national du PPC. kon defe naa ne kii du gan gu ndaw. Euh, kuy élève jëli bik. te dëgg kuy élève na jëli bik. Hmm. jërëjëf mais nag mais nag mais nag nag Ndiaye. Hmm. da koo tagg ci Lat Joor. waaw moom mu dellu si la ni la yéen jii la bokk. Hmm. balaa mu bu nuyoo ba tàmbali. damaa bëgg mu cof wal ma cof laa wax. luy yéen ak fan mooy yéen. gi nuyool. kilifa gi yàngoo. d'abord maa leen di gërëm. jërëjëf di nuyu nuyu bu sel lool. Mm. di am ci ñi ngeen ñëwee fekk ma fii. ndeysaan ma di leen ci gërëm bu baax a baax. réew mi njaay ñoo ko bokk. dëgg la. Mm-hmm. ca Njaajaar Njaay. mbaa Njaajaan Diop. Njaajaan hmm, Njaay. kon fi ngeen ma fekk si tey yéen. war naa sànq ne sama ma Fatim Diop fi la ne woon fi la dëkkoon ay toolam a ngi nii yéen nag dëkku lébu la. dëkku lébu. yéen tool mu ngi nii yéen géej nga ne waaye benn yéen gi la rek mhm. day mbokk ñëpp mhm. bokk géej gi mhm. ak suuf si loolu nag mooy Sénégal sànq dama wax Ndiaye ne ko ñi taxaw fële ay dëkkandoo lañu ñu dëgg la waaye dëkkandoo tamit jàmm ci gën jàmm ci gën waaw ah. dëgg la Diop kon ñu koy rafetlu loolu jërëjëf jërëjëf Diop ah, damaa bëggoon ñu tàmbaleeg moom waxtaan ndax nag am na genre gan yoo xam ne boo ko amee. profité ci. mu jàngal ñu. yombul ndax ñun xale yi xamuñu dara. dañoo fekk ceebu jën bi rek. ñee ndugg gi. togg ba mu ñor yàqal ñun dañoo ñëw rek toog lekk. moom mu fekk lépp damaa bëgg saa alaaji. ñu waxtaan ak moom. commencé ci mille neuf cent cinquante et ba deux mille quinze. bu mënee nekk de. waxaguma 2016 ndax ñoo ngi janvier. waaw 1951. Mhm. lu xew. 54 mhm. la mhm. xew. 57 58 60 Sénégal am indépendance am. ndax nag. ànd nag Senghor liggéey. moom mii. nag Abdou Diouf liggéey. ànd nag Abdoulaye Wade liggéey. ànd na ak ak euh, euh, ak ak ak Macky Sall. kon kii mooy numéro 4. réew mee ko ñor. kon defe naa ne historique Sénégal. ñun war nañ ci war a mën a waxtaan ak moom. dëgg la mook Senghor. 1951 ci ci ci la sa dugg ci politique defe naa. wala ci nga dugg yow ci politique. man man waaw. ci nga dugg ci politique ah, parce ah. que sama histoire loolu la ma jox ku naan Maurice Guèye. voilà moo ko dugaloon. maire de Rufisque. maire moo doon maire de Rufisque. Hmm. dugal la ci politique. dëgg dugal la ci part bu ñu naan. BDS maanaam muy parti Senghor bi. Hmm. nan nan la demee woon loolu. Ndiaye merci xam nga maa bokkoon maa fekke woon. bokkul ak damaa dégg. dëgg la mhm. dañ mane maam mhm. chance bu day ni 1951 boobaak léegi am na ay at. Mhm. dëgg Maurice Guèye nekkoon maire du fisc booba jamono Saneex. ñeenti maire ñu amoon Sénégal. muy ñan. maireu Ndar Ndar. meeru Gorée. Gorée meeru Tëngéej. Tëngéej mhm. meeru Dakar. ñoom lañ daan woowee. les quatre communes les quatre communes. Mhm. ca si ñaar yi ne woon. tey nan la ñu waxtaan de alaaj. laaj daa jëli leen big ñëwal. les quatre communes yooyu la. Mhm. ku ci juddu woon. da ngay doon français. am nga nationalité directe. d'office très bien. waaw amul xaaral ma ñëw ci français d'office. d'accord. 1951 nag Léopold Sédar Senghor. ngeen xam ne 1948 la tàggoo ak Lamine Gueye. créé BDS. Lamine Gueye nekk SFIO. SFIO. section française de l'internationale ouvrière. waaw. 51 nag moo am des élections législatives pour fal député yu war a dem France. Jalla Bellas da nga woon xanaa. déedéet blessé avant. avant. boobu député yu France la ñuy dem. waaw. Mhm. Palais Bourbon. Bourbon. Bourbon fa la ñuy siégé. Mm-hmm. Senghor ànd ak Abbas Gueye. Abbas syndicaliste. Mm-hmm. lébu de Dakar. def kooli ñoom def ñaar seen liste. Lamine Gueye ànd ak Ousmane Socé Diop bu Tëngéej. Mm-hmm. moom tamit euh, lébu def seen liste. cinquante nag. Maurice Guèye ci la bàyyee nag euh, Lamine Guèye mhm. ànd ak Senghor fan la amee loolu jardin public ci Tëngéej mooy toolu buur. bi nekk public ni euh, Tëngéej nii. en face man mën naa mën tuuti. waaw dama dañu dañu dama amoon benn way bu nu daan way booba ñun ñi ngi def benn fresque. Mhm. sur les sur les cheminots. Mhm. ay Baba Sankare ay ñoom ay ay ay Nina Fall ay Nina ay Ibrahima Sarr Ngoné Ndiaye Ousmane Ngom waaw ci lañ daan way ci lañ daan way boppub Senghor une brillante une fóon boppub Lamine une pétrole ko une taal waay boobu lu ko taxoon waay boobu lu ko taxoon jóg <laughs> loolu fii jigéen ñi la fii waaw xam nga in foo ko déggee rek waaw ñu taal di lébu lébu ñu taal yin bokk léegi nag in fay xew de. in fay waaw du dëgg. <laughs> waaw nous d'accord. <laughs> loolu eh, da nga moo dégg de. Euh, Maurice Guèye. Maurice mhm. juin 51. Mhm. def les élections mu fàq moom ànd ak Senghor. moom Maurice Guèye. Maurice Guèye ñu def le meeting jardin public. Mhm. toolu buur. toolu buur keroog la la jël sama loxo jox ko loxo Senghor. ndeysaan mm-hmm. maa jël loxo Senghor jox ko sama loxo. Mm-hmm. ci laa ànd ak Senghor. d' accord Maurice Gueye confié ma la hmm. la. 51 la. la loolu. ci kon donc noonu nga xamante ak Senghor. voilà euh, Maurice Gueye moo leen présenté nga nekk ak moom. ma nekk moom mais doon xaleem jeune waaw mais boobu étant jeune la. Hmm. mais dafa am xewoon Louga. Hmm. en 1953. gars yaa ngi ñëw de. waaw dama ko dégg ci histoire. ñeena yéen jeunes ya. di ngeen dem Louga ku ñu naan Mansour Bona Ndiaye teeru leen. dëgg la lan moo fa xewoon Louga. waaw 1953. Kër Mbargu. ba ñu wootee 51 ba Senghor gagné. Mhm. moom Abbas Gueye. Mhm. parti bi nag gën a am doole. mu di BDS. BDS mooy parti Senghor bi. bloc démocratique sénégalais. ñu ne ñu nag yéen xale yi il faut ngeen créer seen seen mouvement. seen mouvement. waaw mouvement des jeunes. waaw. seen ñu dem nag à Louga. Hmm. en 53 créer le MJBDS mouvement des jeunes du bloc démocratique sénégalais MJBDS. bokk ci biir parti Senghor bi. bokk ci biir parti mouvement bu judd la ci biir parti bi. exactement pour jeunes yi. Mansour Bouna Ndiaye moo ñu teeru woon. ndeysaan yal na ko yàlla yërëm. ndeysaan ndeysaan. Alkali Diouf docteur en pharmacie. moom la ñu hmm. faloon secrétaire général. Hmm, Mbaye Ndiir bu Thiès ñu fal ko secrétaire administratif. Hmm. Mbaye Ndiir. Mbaye Ndiir waaw ko mooy papa yi may mën a Ndiir. moo dencoon sama maam man. d'accord nag mu ngoog. Hmm, ah. waaw ñoom Ndiir ma màggat Ndiir. Hmm. ak Mbaye Ndiir. ak may mën a Ndiir. ñoo bokk ndey ak baay. dëgg la jërëjëf sama wujju maam la woon Adja maam Ndiaye Allé. mbokk feeñ na Mbaye Ndiir boobu nag. waaw Euh, Lamine Sarr. ancien député de Foundiougne. moo nañu ci woon secrétaire général adjoint. man ma doon secrétaire à l'organisation. à l'organisation très bien. loolu di 53. ca mm-hmm. Louga. 53 mm-hmm. boobu nag am na solo waaye lay ñëw ca kanam mooy 54 moo di euh, ñaari yëf dafa am. muy yan si. moo di France dafa coloniser woon Vietnam comme ñun ni mu ñu coloniser woon. Mhm. Vietnam menn ga. Vietnam waaw. Vietnam yi nag. Mhm. jël seen i ngànnaay. Mhm. pour combattre ëpp français yi. 54 lu ñu tuddee jën benn fu dëkk bu tudd jën benn fu. fu jën fu. alaaji kii geeru fa. jën fu. waaw góor gi kii. kan sa papa. di nga nag man da ngaa mos a dégg sam papa dafa dem jëmben fu <laughs> sa papa Algérie la dem dinañ ci ñëw. <laughs> alaaji yow waxoo ma ne sa papa. gerte gi ma jaaxal fuu gi. waaw kilifa gi alaaji alaaji Vietnam demal. jëmben fu. waaw. moom lu doy waar lu fa xew. lu fa xew. moo ñu ne armée française. Mhm. ak ni mu amee histoire ak ni mu amee doole. waaw. Mhm. ak ni mu amee stratégie. Ah. Vietnamien yi. dañ diir gagné leen fa. gagné leen dañ leen a duma. Ah, duma yu dañoo miin àll ba. duma yu métti sax. général Giap moo commandé woon les Vietnamiens. ma boobu boobu Vietnam moo recevoir. waaw ñu euh, waaw parce que France <laughs> moo nekk ci réew. boo demee terrain jàmbur nag. général euh, général Giap. Euh, waaw moo commandé les Vietnamiens. général De Castries commandé les Français. ñu dóor Via Castries ñu dóor ko bu metti très bien jàpp leen ay prisonniers loolu nag ñun fii ci Afrique mhm. ñu ne kat attention comme vietnamais yi mën nañoo dóor français yi ñun mm. tamit war nañoo mën a nag jéem dara dóor français yi pour am indépendance <laughs> non yëngal rek pour mën a am seen indépendance waaw waaw yow booba ci nga bokkoon parce que ah, ci décision yooyu absolument parce que ah d'accord kon man si je comprends bien ñoo leen inspiré. waaw ah voilà a jëm. parce que tey vietnamiens yi. Mhm. gagné nañu français yi. Mhm. am seen indépendance. Mhm. nga dem euh, jamono jooju nga dem Égypte. waaw Nasser a fa newoon. dëgg la ñoom it. am indépendance xeex seen indépendance. waaw boo demee Maroc. waaw Euh, euh, Mohamed VI. waaw Hosni Moubarak fu mu nekkoon. Hosni Moubarak après Nasser après Nasser waaw nga dem Ghana. ñoom Kwame Nkrumah. Mm. waaw ah, kon donc yéen africains yi maanaam yéen sénégalais yi. Mm. ñoo ñoo leen inspiré woon. ba tax ngeen dem jàkkaarloog De Gaulle. exactement am na solo. Uh-huh. am na solo ndax da ngay jàng tous les jours. Mm-hmm. li ñu gisoon nag booba temps. boobu yaa ngi 54 ba tey de. waaw. 55 mm-hmm. nag. Mm-hmm. Algérie déclenché moom tamit. guerre Algérie bi moom it. sans papa ñoo leen influencé hmm? Algérie googu. <laughs> alaaj mu ne lan. baal noonu baal mu sedd. Ah, <laughs> président di nga naan ataaya. ah dinaa ci laal tuuti rek. non la ciy defal kii. dama la fay defal mission gi kii. waaw mhm. tàngal gi lay àndal day oyof. très bien cinquante cinq. waaw algérien nga algérien yi. Hmm. ñoom tamit nekk sous la colonisation française jóg nag. 1er novembre 55 la Toussaint ñoom Dan Bella Karim Belkacem mhm. bu jaaf Xideer ñoo ñëpp dottali taay mhm. yëkkati la révolution algérienne mhm. jaageen jëf ngeen na tekk rek yéen déet ñu ngi xoole ñun hmm. ak a jàng ci waay a xool ci ñoom mu koy tegal waaw baro doxal baro te ma laa sàllu ci pôle gi mu gitaar cinquante cinq la. déclenchement de la révolution algérienne. waaw kay mhm. ndax Algérie googule. Mhm. fa la lépp sox ko après. ci hmm. ndax lan. waaw. cinquante huit. yëngu-yëngu en Algérie à Alger 13 mai 58. les généraux. Mhm. français. Jo. Zeller. Chal. quatrième ñoo ñu mhm. yëngal nag ñoo ñooy dañuy def coup d'état presque coup d'état. waaye yéen boobu en ce moment là boobu du ngeen du fu ngeen nekk. ñu ngi na tekk rek ñu na tekk rek def. ñu ngi nii di leen xool. di xam fan lañ jëm. ah pour yéen fu ñu teg seen tànk yéen ngeen mën fa teg seen tànk. waaw mhm. waaw très bien waaw fan lañ jëm. waaw. généraux français yooyu nag. ne on en a marre léegi nañu woy général de mu ñëw jël réew jël réewum Algérie këram waaw jël réewum Algérie non non France jëlaat France boobu De Gaulle dafa bàyyi toog waaw xam nga De Gaulle 1946 la bàyyi dem ci këram toog colombé les deux églises waaw ba 1958 12 mhm. ans après ñooñu généraux yooyu le ne nag il faut ñu jëli général De Gaulle bi dafa jaxasoo jaxasoo boo xam ne bi moom rek ko mën a apaiser moom rek ko mën a régler booba temps René Coty moo doon président de la République. Hmm. Guy Mollet nekk président du gouvernement. Hmm. ah France yi yëngu na ko bu méttee méttee méttee. Hmm. ñu naan soldats yi dañuy débarquer dañuy def coup d'état da nga am ne finalement ñu woy général de Gaulle. général de Gaulle ñëw. nag samay condition mooy lii. waaw. il faut ñu changer constitution bi. defar beneen constitution. moom De Gaulle waaw. ah Macky Sall de loolu lay doxal actuellement di leen ci ñëw. waaw waaw Macky actuellement. daal nañ constitution du tey la am. du tey la am dinañ ci ñëw. dinañ ci ñëw France. Sanex. 1789. Mhm. waaw da njëkk am constitution. 1789. ba 1950. 1950 de Gaulle ñëw change constitution bi. France ñu mag. du dëgg. Mhm. moo ñu mag foofu. <laughs> waaw waaw ñëwal président. <laughs> alors waaw cey lii loolu <laughs> cinquante huit la waaye cinquante huit ci ñun ñii Sénégal ak Afrique noire am na solo waaw ndax lan hmm. ca bene daaw may euh, ba ñu ak Senghor waaw BDS BDS après loolu mhm. les hommes de gauche comme on dit les communistes UDS RDA waaw parti bu bu bu d'avant-garde parti révolutionnaire. Mhm. ñëw ànd ak Senghor créé le BPS. Mhm. mais loolu loolu kilifa gi bëgg naa nga may ñu ci benn trente secondes. parce que commune communiste yi ak socialiste yi def coalition bokk benn parti. alors que ay pire ennemis la ñu woon. ndax déjà mentalité yi bokkul. déjà seen vision bokkul. communiste yi ñoom ñoo ñëw coali ak socialiste yi loolu mus na am. waaw am na solo ndax tey boo ne communiste yi da nga da nga sa xel da nañ ci ay ma kaas ah? waay le front commun voilà waaye tamit en France da nga naan ah? le front commun président jëlal sa temps yow Ndiaye mën la laa wax uh-huh. de mm-hmm. booba temps mm-hmm. UDS RDA Union démocratique sénégalaise RDA section du RDA waaw moo ne woon Sénégal Ablaye Gueye Cabri mm. na ko yàlla yërëm mm-hmm. jiite ko ba Cerno Cerno ba ànd ak moom. Mhm. Ndeye Ndaw ànd ak moom. ñoom Ablaye Ly Makhtar Mbow Assane Seck. Mhm. mais ba tey amaguñu indépendance li muy wax. déedéet ñu ci moomu njaam la déedéet déedéet déedéet. Ah, boobu tegul ñëwaat na ba changer constitution ba France. Ah. mu ñëw waaw. dégg nga de fa xasal ko mhm. lii tàkk ci kawam. fookal la. xam nga lii nu mu yow. 56 boobule. 56 fii fii. gëlëm maam yàlla 56 nag. ci la ñu fusion diggante les hommes de communistes si vous ak le BDS mu créé BPS le bloc mmh. populaire sénégalais Senghor di suñu njiit loolu c'est cinquante six cinquante sept dama la ko junj sànq ñu congrès à Thiès sama dëkk ba Thiès kër euh, euh, euh, Latouf waaw xam nga Latouf ah. congrès ba décembre créé l'UJBPS Union des jeunes du bloc populaire sénégalais waaye avant loolu. Mhm. septembre 57 toujours à Thiès kër Issa Bass docteur Issa Bass. ak jabaram ca pharmacie ba ca la ñu créé PAI. xam nga pharmacie ba fu mu ne. PAI waaw. xamu leen pharmacie Bass fu mu ne. ban pharmacie la pharmacie Kayor. boo ko wàccee nële di dem mairie pharmacie ba ba ba waaw nee. waaw waaw waaw waaw. pharmacie base foofu la ñu septembre 57. PAI yi. waaw ah, la ba. Mahmoud <laughs> moom sa réew. waaw mhm. <laughs> bokk moom sa moom sa <laughs> alors loolu tamit. yéen Sénégal. Sénégal yaa gën a. ci conscience politique bi ñëw ci la bokk ñun nag ñoom septembre ñun décembre. waaw. 57. waaw. Ndiaye defaral président col bi. micro bi. mais mais janvier 58. Mhm. Lamine Gueye mi ñu doon wax sànq. waaw. def fusion ak Léopold Sédar Senghor. waaw. seen ñaari parti BPS ànd ak SFIO. Mhm. PSAS la sax. Mhm. tuddee seen bopp nag UPS. UPS. Union Progressiste Sénégalaise. ñu ngi ko man ma ko déggee boobu ba léegi ñoom. ñi ngi ci jeex rek. parce que tuddee nii changé waat tuddee nii. oui oui tuddee nii boobu yéen a ki jeex rek. pour pour pour mën a am assise bu baax assise bu baax ak dégol. waaw acca. ah loolu janvier la. waaw. 58. waaw mais toujours. Mhm. juillet 58. waaw mhm. Senghor. Mhm. fii Dabo Sissoko. Hubert mhm. Maga. Bakary Djibo. ndeysaan. Bari Trois Bari Diawandu. Gabriel Lisette. Euh, et tant d' autres. et tant mais il y Niger. Oh. waaw Niger lu muy wut fii suñu Sénégal. déedéet du bambara ñëwul Sénégal. ah voilà da ngay ñibbi de. ñëwul senegal ah, du ma laaj. Hmm. loolu ba mu amee ñooñu ñëpp nag. Hmm. di ay kàngam ci Afrique. Hmm. te nag dañuy boole suñu bopp léegi nag. Ah. cey. bomb ba bomb baa taxaw de. créé li ñuy tuddee parti du regroupement africain PRA. PRA. Ah. parti du regroupement africain. yow boo paree dañuy wax say at yow njaay ah déet damay culture. ah pra pra pra. waaw am ñu doon wax pra. <laughs> nga ne de bàq la. sax sa gin ki mbra. <laughs> waaw waaw. waaw. boo dégg de président kii sama xarit la. waaw nga de. Uh-huh. waaw président. ñu ne bon. vingt cinq. Hmm. vingt hmm. six vingt sept juillet cinquante huit. Hmm. congrès de Cotonou du PRA. Cotonou moo doon daaw may. waaw mu mënoon daaw mooy beneen beneen léegi. mooy léegi gars yi fubale woo sa licence de. waaw licence su jàmbur la yoon. licence su jàmbur ngay fubale de waaye dina leer haute volta la woon bu njëkk ba mooy Burkina Faso tur boobu sax dama kaa gëj a dégg. haute volta ñun ñu ñett ñu ne neen la après ku ne di nga wax sa bopp. indi sa bulletin de naissance. da koy nëbb. nëbb ma sax waaw kilifa gi <laughs> noonu daal. Hmm? congrès boobu nag mooy pour la première fois en Afrique noire française. Hmm? cum. pour la première fois. ay homme politique booloo seen bopp. ànd noo jëmukaay def congrès joxe ay mot d'ordre. ñëpp daay africain. waaw daa tuuti yéen ñëpp ngeen d'accord ci ana papay Karim boobu. bu ñëwagut papay Karim 74 la ñëw. ah waaw continuer dina ñëw non non non attention Ablaye Wade nag il est venu tardivement à la politique. ci papay Karim boobu. waaw mooy li ko doon tamit. ah, ah man xam nga lu léegi lu ma bëgg a xam kilifa gi. Hmm. donc ba ba ba 58. Hmm. yow parce que 58 boobu. def naa ne De ci la ñëw Sénégal. waaw waaw au mois d'août. août ban kon euh, PRA bi ban année lañ ko. juillet la ban moom juillet le 58 septembre août. waaw ñëw Sénégal. non non juillet août. juillet août. juillet lañ dem euh, congrès de Cotonou juillet. 25. waaw 26 27 juillet. Uh-huh. ba août. 26 août de Gaulle ñëw nag Dakar place Protet. bis boobu la. 26 26 août. 1958 58. 26 août 1958 de Gaulle ñëw. place place. prote Protet mooy actuellement place de l'indépendance place indépendance. ci loolu président ñu ñëw fii sa kër fekk la fii ci yéen nga dalal ñu ak jàmm. Hmm. waaye nag euh, euh, doo lay jël ndox. Hmm. ñu ànd ak sunu partenaires yi. ndax ñëw de googu. Hmm. ku hmm. yobu déglu ko. suñu patron way na ko de. waaw. Mhm. kii ñooy Touba Gaz. ay doomu réew mi ñoo ko moom ay doomu réew mi ñoo ci liggéey certifié nañ leen ISO. Hmm. ca bitim réew jox nañ leen certification ISO. Mhm. nangul leen sécurité bi ak anim yi koy liggéeye hmm. ñii ay doomi réew mi ñoo ko moom. ñu ngi tudd te Forte. warga bu neex la. Mhm. warga bi yow yaay at yow yaay ataaya ba mu neex la rek nga arrêté. Mhm. te sécurité yëpp def nañ ko ci ci wàllu sell set maanaam boîte bi boo ko ubbee defal nañ la sax foo xam ni da ngay xëcc sa loxo rek mu daal di dajeeku doo ko. doo ko sex parce que c'est pas hygiénique bu oyof baa ngi ci suuf. bii mooy bu foor bi. Mhm. bu oyof baa ngi nii dinañ la ko bàyyil fii. ànd ak tàngalam. ànd ak tàngal bii tudd. mission mission. Mhm. mooy naana mooy remplacer naana bi. jeex na jërëjëf. léegi kilifa gi kilifa léegi xam nga lu ma bëgg ñu wax. ñu ngi leen di encouragé waaw waaw jërëjëf. xam nga bëgg ñu wax. Mhm. en 1958. de Gaulle ñëw na Sénégal. taxaw na. Mhm. yéen boobu seen taxawaay lan la woon ndax jamono jooju. dégg naa ne gisul woon lenn lu dul Sénégal moom boppam. am indépendance am. cey yan kàddu fa jóg keroog. ak de Gaulle yan kàddu la ci cey mag ñi alors bala ba ñëw ci loolu da may may. Mhm. ma dikkaat tuuti ci congrès de Cotonou. ñëwal ñëwal. Praga waaw parce que foofu la lépp soxi ko bañ fa demee. Mhm. ñetti fan la congrès suba ngoon. yow yaa nga fa woon ñetti fan. man nag sama chance mooy fekke na. fekke na lépp dee na. maa gën maa gën nekk xale ci ña ne woon ñëpp nag. ndeysaan. ay chance la loolu. loo xam ci ku génnee ak jàng. chance la loolu chance la. Mhm. alaaj yow fit nga manqué fit keroog mm-hmm. ba ñuy composé délégation bi mm-hmm. pour dem Cotonou waaw ñu ko defee hôtel de ville bu Dakar bii te waaw foofu lañ daan réunion bureau politique waaw ñu boole ma ca délégation ba mm-hmm. booba tax amul passeport mm. lu amoon carte d'identité ci ngay voyagé carte d'identité rek amoon na. donc ñu jógee ñu jëlee avion aéroport Yoff fanaan Abidjan fanaan fa bët set ñu dem Cotonou te léegi da ngay jógee fii dem ci Cotonou directement. Mhm. mais mais mais président nga baal ma nga baal ma parce que man dama xaw dañ kumpa tuuti fan ngeen daan jëlee ay ressources yi ngeen daan jë bindee ay billets d'avion yi ngeen daan fan ngeen daan jëlee euh, xaalis. cotisation cotisation ak tamit les élus. Senghor Mamadou Dia. ñoom ñëpp ku ci ne da nga daan cotiser par weer. Hmm, ci la ñuy def seen yenn ay déplacement waaw d' accord ak tamit les quelques rares mairies yi ñu amoon. Hmm, léegi ca Katunu Katunu. dégg nga de. waaw. bañ demee nag Katunu nag. waaw ak ñi leen tudd sànq. waaw kàngam yooyu la Bakary Djibo ñoom. ñu ne nag léegi nag De ñëw na au pouvoir. lan lañ koy laaj léegi. tey ñu ne ñetti yëf. trois mots d'ordre. Hmm. indépendance immédiate. Eh, direct Cotonou lañ ko waxee. pour la uh-huh. première fois la wax ci Afrique noire francophone ay ne indépendance immédiate. saa uh-huh. neex muy trois mots d'ordre. muy bu ci njëkk. indépendance immédiate indépendance immédiate. ñaar. nation fédérale africaine. ñett confédération des peuples libres. dégg nga loolu. loolu ma nga juddoo kotonu indépendance immédiate. Mhm. mooy moom suñu bopp. moom suñu bopp. ca ca ba ca Cotonou. waaw loolu ngeen fa njëkk a wax kom moo d'ordre maanaam loolu ngeen fa njëkk dogal. ñu wax ko ci wolof jot sa réew. jot sa réew. Mhm. jot sa ngeen fa njëkk a réunion après. Mhm. nation fédérale africaine mooy unité africaine. unité africaine Afrique booloo bokkul ak OUA. E beneen bi. ñetteel bi mooy confédération de peuples libres. bu ñu amee unité africaine nag. waaw ñu booloon ak ñeneen ak ñeneen. am na solo. waaw léegi nag. donc ndax dina ko nangu. travaux d'ordre yooyu la lañ ñëwee nag jógee Cotonou nag ñëw Ndakaaru. en 58. juillet 58 di préparer nag arrivée général de Gaulle août ban bés la woon. ba la woon. ban heure la fi wàcc. de mu ngi ñëw. booru yoor yoor 11h. boobu moo doon premier ñoom Séné fii Sénégal. non non na fi avant. Ah, avant waaw mu ñëw fi booru yoor yoor. waaw xam nga dëggoon ñëw na fii ak euh, gouverneur général Boisson. ñu ah. tiré ci kawam. waaw ah. 1940. mooy Balba balu Ndakaaru. <laughs> mu ñëw fi booru yoor yoor. yoor yoor. Mm-hmm. waaye dem nag au palais du gouverneur. Mm-hmm. mooy fii léegi Macky Sall dëkk. foofu moo doon palais du gouverneur général. waaw. booba temps Mesmer moo fi newoon comme gouverneur général ba mu fa demee nag ñun fekk na ñun ñëw nañu place Protet huit heures du matin. huit heures du matin. mala moom mu egg si mu egg si fi onze heures. dem nag au palais. ñëwagul ci mbooloo mi. ñu nekk fa keroog Ndakaaru dañ ne trois cent mille habitants la woon. tàmbawul mhm. waaye keroog place Portée rek amoon na trente mille ñu mille personnes. mais xaaral dafa am ñeneen ñu jógee si sous région bi ñëw. déedéet étudiants yi. Mhm. syndicalistes yi femmes yi jeunes yi conseil de la jeunesse MJPS PAI extra extra ñëpp nga fa woon. ndeysaan. Hmm. doy waar. Mhm. amoon na sécurité. waaw alkaati yi am fan. huit heures ba ba cinq ci ngoon lay ñëw. waaye déedéet onze heures wala dix sept la. wàcc Sénégal. waaw dem kër gouverneur ba. waaw ba dix la ñëw ci meeting ba. dëgg la. très bien. Mhm. ba mu ñëwee nag. waaw. fekk na ñun préparé nañ suñu pancarte. yéen jeunes yi. waaw MJPS on avait les moyens. ak tamit euh, ñoo demoon congrès. ñii yàlla ñu leen yàlla fayal. ndeysaan mhm. ñu di ko yuuxu di yuuxoo indépendance. indépendance indépendance ah. indépendance oui foofu di riir. waaw waaw maa la wax loolu fépp di riir. jigéen ñi. Mhm. ñoom Adja Awa Gaye ñoom Maguette Diop ñoom Cumbe Samb jigéen ñu baax nañu. Mhm. ñu nga foon tamit. ba dëgg lu la mu wax. alors Valdiodio Ndiaye moo jëkk a euh, jël kàddu. ci turu Sénégal pour gouvernement du Sénégal. Mhm. kan. Wal Joojo Ndiaye Wal Joojo Ndiaye jàpp nga discours am ba. waaw am na waaw bu baax a baax parce que moom de ko kale ci Congo de Cotonou loolu la wax la ñu décoroon ca Congo de loolu la indiwaat jox ko général de Gaulle. ni ko daal indépendance rek. indépendance immédiate nation fédérale africaine confédération de peuples libres. super sant super. ñu di ko nag feelu nag ñun nag. naan indépendance. waaw lu mu wax ngeen ngeen ngeen. waaw waaw waaw De Gaulle ba mu yéegee lan la leen wax. De Gaulle nag mer lool. mer na ah dina mer. ah foogul woon loolu la fay fekk. voilà ah naa bu def dañ koy tàccoog yooyu. fekk gars yi nañ ca Cotonou. waaw dama ndax yéen yéen. parce que nag alaaji. ca De Gaulle la ma wax de. ca De Gaulle maa ngi ñëw. ah waaw parce que. Euh, foo ji seex. mbooloo hmm. bu ñuy màmmee jëm genn wet ga dina am ñu mbas mhm. ndax ma période bi ngeen doon wax de naan ko Sénégal indépendance indépendance indépendance amul ñeen ñeneen ñu mbas jëm ci côté de Gaulle wor ah, sa neex waaw looloo gën a neex lépp nag ah. xam nga sa neex am na waaye li gën a neex <laughs> mooy loolu mooy yi waaw waaw ñu trahir gis nga ba de Gaulle jógee ba mer ba ne je salue Dakar. waaw je Dakar mhm. ville vivante et vibrante. Mhm. Mhm. waaye nag teg ci ne je voudrais dire un mot aux porteurs de pancarte. maanaam yéen ña yoroon parc. yéen a yoroon pancarte déglu leen bu baax la De Gaulle wax. si vous l'indépendance. prenez-la le 28 septembre. mooy référendum ba. waaw le 28 septembre. ah d'accord un mois après. la waroon am référendum. exactement mu ne bu ngeen bëggee indépendance jël leen ko jël leen ko fii ak un mois. waaw boobu mer na. waaw loolu ay wax la nag. wax la waa junj la. ah ñu yuuxu na ñu yuuxoo ñun ñaar kontaan lool. sabar ya jóg waaw ñëpp d' accord. Hmm? loola tas De dem kër gouverneur ba. léegi kilifa gi. loolu en cinquante la. waaw. Mhm. mu ne leen fii un mois. su ngeen bëggee indépendance. en 58 jëlee yow dootoo naan de. bi du man kilifa gi la. nooy def kilifa gi bosama ah. ngi nii. waaw d' accord n' est ce pas. donc en 58. waaw mu ne leen fii ak un mois. jël leen jël leen seen indépendance. loolu c' était en 58. lan moo tax kon ñun ñu am suñu indépendance le 4 avril 1960 deux ans après. très bien ñan est que du waruk saa neex gi mu waxoon ak yooyu. fa la feeñee wala. wax nga dëgg de. gis nga keroog. Mm-hmm. réew mi réew diine la ak aada. waaw fii général de Gaulle ba mu delloo. Euh, au palais. waaw. ji muy ñëw jege France mu ngi ànd ak Bernard cornut ministre de la France d'outre-mer. Mhm. waaw. ancien gouverneur général à Dakar. waaw. muy ànd ak Pierre Messner gouverneur général à Dakar. waaw. général de Gaulle ba mu delloo au ak laxaw place Protet. mu am lu ko naqari. am lu ko naqari lu ko naqari kontaanul. Mhm. mooy nag ñi mu àndaloon ñëpp mën nañoo sax dem mais ba mu des Sénégal. Mhm. yéen la mere. waaw baax na waaw. Sénégal waaw. warul warul jógee ci France. ah, ah dañoo bëggoon Sénégal ñoom. a ah, ñeneen ñëpp nañ jam ba mu des Sénégal. waaw hmm. mooy nag pexe bi mooy yow Bernard Cornut-Gentille maanaam nekkoon nga fi gouverneur. kon kooku dafa bokkoon ci ñi bokkoon délégation de Gaulle. waaw waaw. mu ne ko yow toog fi ba réglé loolu yàgg Pierre Mesmer mii. Mhm. te kooku dafa bokkoon ci délégation bi. waaw de Gaulle waaw moo doon de la France d'outre-mer. waaw ah d'accord. Uh-huh. dégg nga de Cheikh. waaw baax. ah daañu nag jóg nag. woo commandant cercle yeeg ñëpp. commandant cercle yi. waaw chef de canton yi. chef de province yi. Mhm. les chefs religieux mhm. tous les chefs religieux. mu woo leen. convoqué leen euh, à Dakar le 27 août après midi. donc lendemain meeting ba. boo ñëwee building. Mhm. dafa fees ak ay manteau yu rouge yu xonq. lu tax chef de canton yëpp manteau yu xonq lañ daan sol. Cheikh fu la wax lii. Ah, euh, histoire. rek kii dinañ ko histoire bàyyi rek ñun xam nañ lépp li ngay def. monal bi li nga ciy def yëpp xam nañ ko. Mm-hmm. Mm-hmm. détecté nan la. waaw sous terrain bi. après bu kan gi ñibbee maag alaaji nañ gisee. waaw baax na acca uh-huh. ñëwal. alors. Hmm. moi moi ce que nous ñooñu nag kenn ku ci ne dem ba sa euh, waar ñooñu la kat. France daal dafa bëgg toog ak Sénégal référendum bi na ngeen woote oui. Ah. ndax da ngeen woote bu ngeen nee oui mooy na France toog ak Sénégal. noo koñ non nag ñooy ñan. mooy yi nañ ñu jox suñu indépendance mooy yéen. non mooy jox leen ñu suñu indépendance oui mooy nañu des ak France. voilà très bien. noo yaa ngi wuyee boobu. <laughs> dama ne la kuy sëriñ ci réew mi. képp ku chef de canton. jamono jooju. France nga ànd nga ci wuy. ndeysaan. Ah. sa bopp moo neex. baro doo ñëw foofu France la ñu àndal alaaji. France la ñu àndal France. Eh, alaaji. alaaji war a na France toog. na France Sénégal ak France bokk ndey ak baay. baay non mooy jox leen suñu indépendance non yaa ëpp moom bopp. non oui yaa ëpp nag. léegi nag nee na moo tax amuñu indépendance en 58. Ah. képp kuy chef de canton. waaw ak sëriñ booba jamono ci réew mi rek. France nga àndal. voilà ah. ah. del déglu baax na. d'accord ñun suñu bi mbokki ci Cap Vert yi. Mhm. Alaaji Ibrahima Diop yal na ko yàlla yërëm moo doon booba grand seigneur de Dakar. Mhm. moom mu ne. Cap mhm. dañoo bëgg mu doon département français sax faf. département français mu booloo mu bokk ci France complètement pour dire que ne. Cap-Vert waaw Dakar lañu difficile. donc 28 septembre ñu voté. ngeen ñàkk. ñu ñàkk ñun le non. dégg nga de. bu baax a baax a baax léegi léegi man. mais avant loolu. waaw UPS moo fi newoon ci parti waaw ëmb ñooñu ñëpp nag Lamine Guèye euh, Senghor Mamadou Dia Ablaye Ly et cetera ñëpp tout le monde. Mm-hmm. Mm-hmm. ñooñu nag bañ jógee nag place Protet. Mm-hmm. De euh, dem ñu ne il faut nag ñu réunion nag ba xam nag ñun nag lu ñuy def. ndax dañuy ànd ci indépendance immédiate ou bien dañuy def lenn. te nga ji salle de fête. dañu réunion ñaari yoon. waaw suba gi ba njël amuñu accord. amu leen accord accord. waaw jubóowuñu. waaw finalement le 20 septembre 58 ca njël la ñu voté ñun ñii di partisan du non ñu ñu baat luñu léegi. ñu jógee fa dem créé ji PRA Sénégal à Dangu Sud kër Amadou Gabengue yi keroog.

20 septembre boobu Sénégal amagul indépendance boobu Senghor kii De Gaulle yegg seegu fi. boobu 20 ah, septembre. Euh, ñëw na ba dem août la donc le 28 septembre moo dem référendum bi. waaw ah, kañ waaw kay mi nii. Euh, kon kilifa gi man dafa am lu ma bëgg a ci lu ndaw rek. Mhm. avant ñoo ñëw ci 1960 Sénégal am indépendance. Mhm. à part nag ñu dugg nag léegi nag ci li fi xew nag ci mhm. actualité bi. nest pas. donc xam nga dafa am problème bu am. yàgg nañ koo wax ñun xale yi yàgg nañ ñu koo wax dañ ñu ko leeral tey. Senghor. ak Seexu Touré seen problème lan la ndax ni ma déggee ci biir wax bi nga Senghor dafa bokkoon ci ne wii waxul woon non te De defe naa balaa moo ñëw Sénégal jaar na pays africain jaar na jaar na jaar na Guinée Conakry jaar na ba Seexu Touré na non jaar na Mali Mali ak Sénégal benn la woon. waaw n'est-ce pas après. waaw après la après la loolu kon donc mhm. dafa jaar Guinée. Mhm. Sékou Touré na non. Hmm. nañ ma jox sama indépendance. waaw ndax loolu kàddu yooyu ngeen tënkoon ca Cotonou. waaw demal waaw. n'est-ce pas loolu da du bëgg mu leer rek. waaw kàddu yooyu moom ngeen tënkoon ci koto hmm. De Gaulle jóge Guinée ñëw Sénégal kon Senghor na wii. ndax loolu mooy problème bi wala lan la entre Sékou ak ak ak Senghor. gaawewul noonu gaawewul noonu euh, De ba mu jógee France. Hmm. Madagascar la jëkk a dem. Mhm. jóge Madagascar Canaries Sirana recevoir ko. bu baax a baax tàcc ko ne loo loo wax loolu la ñu wax. te hmm? Madagascar. Madagascar mu jóge fa. mu jóge fa dem Congo Brazzaville. ñooñu ñu ne ko. Abbé Soumbédioune ne ko loo wax loolu la ñu wax. mu jóge fa mu jóge fa. dem Côte d'Ivoire Abidjan. Houphouët-Boigny ñu ko. Houphouët-Boigny doon son ministre. ne ko loo wax noonu la ne loo wax noonu la. mu jóge fa dem na Conakry. Sékou Touré ne ko Sékou Touré ko. Hmm. nous préférons l'indépendance à l'esclavage. cey Seexu cey Seexu. mais kàddu yooyu lañ dënkoon Cotonou. Sékou Touré wala Sékou Touré nekk woon Cotonou. mais. benn Sékou mu ñëw Sénégal Sékou Touré ko loo wax loolu la. dañuy wax ne De général la woon da doon sol eh, eh, eh, képpi waaw keroog képpim boobu ko fàtte. daa tiit ca Sékou ah Cheikhou nag ñeexut a ñeme de. d'accord ah, kon kon kon Cheikhou Touré bokk woon ci ci ci ci PRA bi. déedéet bokkul moom mu ngi woon RDA. kon lan moo tax parce que dañu waxante dëgg télé Guinée bu daan tëj jamono jooju. da ngay dégg Cheikhou Touré day wax. waaw ni lan bu fekkee waa yow loolu na la loolu am na. oui loolu am na. déedéet ameewul noonu waaye. waaw Cheikh yow ku la. ne wax ji am na. dafa ne la histoire bi ameewul noonu. daa hmm. Cheikhou na wax loolu ci télé. dëgg la la. daan wax loolu ci télé dëgg la dëgg la alors. Hmm. mais ni Senghor. mais Sanex Senghor bi c'est un grand homme. <laughs> Cheikhou yaboon nañu ah. <laughs> bu ngeen bëggee dégg dëgg. Hmm. ci tax Sénégal am jàmm. gannaaw yàlla. ak Serigne su baax si. mooy Senghor. Senghor a tax. ndeysaan. donc kon léegi 1960 am suñu indépendance. waaw. mais gaawul noonu de Cheikh cinquante neuf hmm. bañ jógee bon place Protet hmm. indépendance immédiate hmm. cinquante neuf nag fédération du Mali waaw kay loolu tamit am na fa fédération du Mali wax naan sànq ne leen waaw Cotonou trois mots d'ordre la woon bi njëkk indépendance immédiate bi ci tegu mooy nation fédérale africaine unité africaine mhm. ñoo leen doon may seen émission ngoonal